sëriñ bi longu lay seeti ñaan faqir dafay nangu dagaan nangu lu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel xernu bi sëriñ bi longu deeti ñaan faqir dafay nangu dagaan nangu lu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatel xernu bi nangu dagaan nag ci Mustapha mi nekk Marwata ak Safa ak aqi am di Mustapha ni yàlla jébbal xernu bi ak aqi mboolem ay rakam ak aqi seen baayi ñu am ak aqi seexi bambaam sëriñ bi jeexul xernu bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu siyaare bu baax euh, sëriñ Sidil Moxtaar mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride di siyaare El Hadj mi nga xam ne mooy xalifa Sëriñ Musaa siyaare sunu xalifa sunu sëriñ sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadou Kabir di siyaare mbooleem njabootu sëriñ Moussa gépp di mbooleem koo xam ne teew na ci bis bi te di ñaan képp koo xam ne teew na fi wala mu yéene woon fee teew sunu borom defal ko xéewal defal ko ndam ci barkeb sëriñ Moussa Ka mi nga xam ne moom la defal bisam bi sëriñ Moussa Ka nag bisam yomb naa woote ndax bis la boo xam ne ku xëy woote suñ tubaa nga xëy wooteel waaw ndax moom léppam sëñ Tuubaa la woon bi muy wane ñëpp it li ci liñ ci xama ko si néew ci lu ñu lu ñu xam ci boppam jëmmi boppam ñi euh, ñi fi bàyyi ñoo ko wax waaye moom waxutoon dara ci boppam lépp njabootu sëñ Tuubaa gi la doon wane di wane sëñ Tuubaa di wax moom mooy kan kon nag ku koy woteel bi sëñ Tuubaa ku wotel woteel te bisam bi day bis boo xam ne euh, yàggees na di ko sàkku ngir bëgg mu am waaye nag mi nga amee ci kilifteefu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mi nga xam ne nii moo fi nekkoon ci jamono yooya ak Cheikh Mouhamadul Kabir mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Moussa Ka ñu di leen ñaanal bu baax ñoom it borom yokk seen i leer te tax seen barke bu baax a baax a baax ah, di jaajëfal mboolem koo xam ne teew na fi rek di wax ne sëñ Moussa Ka moom sëñ Moussa am ñëpp la ah, la ma waxoon laay waxaat rek mooy képp koo xam ne nii daal ci njabootu sëñ Tuubaa nga bokk wala nga bokk ci taalibe yi sëñ Moussa Ka wax na ci yow loo xam ne bisam fu mu jotee foo ko déggee war ngaa mën a ñëw kon nag ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaanal xalifa yëpp yi nga xam ne nii ñoo ne ci yoonu murit euh, bàyyiwuñ kenn di ñaanal mboolem seex si bàyyiwuñ kenn di ñaanal suñu xalifa bi nga xam ne mooy alaaji muluka mi nga xam ne moo xalifa suñu musaaka suñu borom yàggal ko fi te ànd ko wér di ñaanal sëriñ fallu ak mboolem njaboot gi sëriñ gaawaan sëriñ mat dem ñëpp rek bàyyiwuñ kenn njaboot suñu musaaka gépp daal bàyyiwuñ kenn di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di wax ne màggal suñu musaaka moom euh, day boole bëccëg ak guddi kon bëccëg gi ci la waaye guddi gi tamit ci la ndax la ca ëpp ca lañ wax ca bis ba sax guddi gi lañ ko wax ndax euh, guddi gu màgg màgg la sëñ Musaa ko wax goo xam ne gi waaju ko màggal màgg daa ne ba Musaa di wax ak boroomam guddi keroog la fa wax nay moroomam euh, ca bam ak teewam kon daana màggal bis bi di ko màggalloo ba ba mu fi jógee ab diir ñu ñu tegandi ko waaye si njëgalal si Abdulaat ñu tàmbaliwaat ko kon moom bis bi sax daana ko màggalal boppam waaw ndax joxe woon na ci ndigal ñu di ko màggal loolu tamit bàyyi ko xel ndax way yi moo way te bis bii la ci doon wax waaw kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel te it mos eh, gis naa ci ay wayam fu muy dénkaane ñi nga xam ne nii ñooy ñëw ci bisam bii di fi màggal si loolu sax way na ko maa ngi koy wan soxna see barki démb rek naan ko suñu musaaka day damaa yéem moom dafa mel ni lépp lu ko wax ba ci bisab tey bii ni ñu fi ñëw di màggal waxoon na ko ndax ma dénk gaa yi màggal fa sama kër dénk bu tax ñu àggal loolu wax na ko ma dénk gaa yi màggal fa sama kër dénk bu tax ñu am ñu àggal dénk di dénkaale jàngkat ya ndax boobaa jàngkat bu ñuy wax combaan moo fi nekkoon ak bi wax sëriñ xabbaan ka mi nga xam ne ab taalibe bi mu ne te dénk dénk jàngkat bu mel ni xabbaan ak jàngkat bu siiw bu mel ni cumbaan daal di cee wax ne léeg-léeg sëñ Fallu wax na ne léeg-léeg nga gis sax koo xam ne day màggal mbir naka ne sax day suufeel mbir ma kon nañ góorgóorlu bu baax loola suñu borom mësul ñu ci ba bañ ñoo dal kon daal suñ musaaka moom yàlla na ko ko suñu borom fayal waaw ñi ngi sant mbooleem koo xam ne teew na di di di jaajëfal ñëpp rek waaye yow suñu bàkk ma ñu di la jaajëfal ndax liggéey bu xaw a jafe nga yor te yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax kon ñi ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbàkke da ngay borom mi boot te sa njaboot tawat giloot ñu def ma ab antal pare may la poto wa akarnu bi mama dilawa waaye muridi ñooma waana tawatal te bunu woo saw la meñeew xarnu bi tey ji ma wax bane tareet ngir yaa ma def antal pareet yaa ba bi xam-xam ne yëreet ci sama xel ci xarnu bi ah, bokk yi ñu ngi nuyu di leen siyaare bu baax di leen baal wax te di leen baal ah di sant bu baax di santaat Serigne Touba di sant Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba suñu borom yàggal ko te wéral ko di sant Serigne Mouhamadou Ka mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Moussa Ka suñu borom te wéral ko di sant mbooleem njaboot ak Serigne Moussa Ka gépp de toftal ci sëñ mu dem sëñ Mbàkke sëriñ Fadilou Ka ak mbooleem sëti sëñ Moussa yi ak seex yi ah, ak sët yu mag yi ak ñu ndaw ñi ak soxna yi bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen sant bu baax a baax bis bi nag euh, bam ba bam tàmbalee ba léegi bokk yi wëllëre yi soppe yi ak sët yi ñëpp ñu ngi taxaw àndandoo liggéey di liggéeyal euh, Serigne tubaa Cheikh Moussa ak Xaadimul Xaadim sëñ musaa nag sëñ Moussa mi ñëpp la waxoon naa ko waxati ko fi rek sëñ Moussa ñëpp la du doom ji du sët ba du taalibe bi ndax moom day euh, moom léppam da koo jëloon dooleem ak alalam xam-xam lépp jëbal ko Serigne Touba ndax dégg nga mu naan lu ma la wax lu ne ci daam laa ko toxale wala alxuraan wala addis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daam mooy Cheikh Ahmadou ma Xaadimu Rasuul alxuraan mooy alxuraan ndigal suñu borom addis euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom mbiram léppam alxuraan la addis bi sallallahu alayhi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax euh, yéen waa rajo bi it ñu ngi leen sant bu baax seen taxawaay rafet na lool sant nañ leen bu baax a baax ba mbir mi xewee ba léegi saa su ne daal noppalu leen muy gudd muy bëccëg yéen a ngi ciy dox bi ci wax noppalu leen kon nag ñu ngi leen ñaanal ci doole Sëñ Tuubaa ak Cheikh Moussa rajo bi yàlla na bokk ci rajo yi nga xam ne yàlla na gën a kawe te barkeel ginnaaw loolu it ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax maanaam njaboot ak Sëñ Tuubaa gi ak seex yi ak taalibe yi ba bis bi amee ba léegi daal kenn noppaluut kenn ku ne yaa ngi ciy dox di ci wax kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp suñ xol seet na bu baax a baax yàlla nañu ko teewaat ay déwén déwén bi jaay Seydina Muhammad barke Ahmad Bamba amoon naa nag waaye euh, xar rek waaye waaye nag euh, Serigne Modou Kabir rahimahullah yàlla na suñu borom yokk leeram daana wax ne lu dul doy loo ci mos mu doy loo loo ci mos rek mu doy kon nag ñi ngi sant bu baax gërëm ñëpp jërëngam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan murit yëpp la ko ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi Cheikh Sidil Muxtaar xalifa général des mourides di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéeral ko te yeggale ay yéeneem ak jëwriñam ji baax ji Cheikh Mouhamadinil Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadinil Bachir ak waa kër Serigne Touba yëpp ak seen ndaw loolu ñu muy seex Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir ñu leen di nuyoo fii nag ci Touba fii ci Daarul Minan fii ci kër sëriñ Moussa Ka werkaanu Xaadim Rasul ñuy lépp nag di tege ci kaw kilifteefu xalifaam bi muy alxaaji Mouhamadul Lumbel Ka yàlla na ko fa yàlla yàggal moo jaboot gi di nuyu eh, di nuyoo itam ci eh, baatub Serigne Cheikhouna Ka mi nga xam ne mooy taawu Serigne Lumbelka ak rakam yi ak délégation bi nga xam ne ñoom fekk nañ ñu fi ñu man cee tudd sëriñ Malick Bassine si mu sëriñ Makhtar Mariama mi daan naafile si jumaa ji ak sëriñ Ibrahima Ka mu jógee Touba Ndiliki ak suñu mbokk yu baax yi jànkati xaside yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal nii ñu fekk leen ñuy durus ak di waxtaane ko tedd ki suba ba tey kon loolu mooy ak màggal di am mbégte nag ci kàddu yi di fi jaaree di siyaare mboolem lu bokk ci sëriñ Moussa Ka muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy taalibe muy wëlëre di si di jaare si Moussa yi di ci ndokkeel yoonu yoonu murid bi yëpp ak lislaam bi yëpp ndax noonu la taxawee noonu la noonu la yaatuwaayam taxawee ñëpp ko bokk si Moussa Ka ku ñëpp bokk la waaye danañ tudd tuuti ci ay sëtam muy eh, sëriñ Mbàkke Ka xam nga ne mooy xalifab sëriñ Saalihu Ka sëriñ Saalihu Ka amoon taxawaay lool ci liggéey sëriñ Moussa Ka bi ndax li ëpp ci mbind yi jàll ñu mool ko lépp ci loxoom moo ko bindaat te mu ko àndoon ak sëñ Gaañ ba waaye li ñu jot mool moom li ci ëpp maanaam mbindum sëriñ mm, Saalihu Kala kon taxawaay boobu it ñu ngi ko ciy ñu ko ciy ñaanal su borom yërmande ak njëggal xalifaam bi fi nekkoon it muy sëriñ Mouhamadul Kabir Ka moom mi nga xam ne màggal gi ci moom la sosoo moom it ñu ngi fiy jaaree di nuyu sëriñ fàlluka ak ak jaboot gi yëpp ak sëriñ Mbacke Madina Ka mi nga xam ne moom moom ngeen àndal ñëw fii di siyaar yi sëñ Mouhamadou Dem Ka moom it si Moussa Ka la ak sëriñ Amdi Ka moom it sëriñ Amdi Ka sëriñ Amdi Ka laa jubla wax waajuru sëriñ Alaaji Safi Alaaji Safi moom it kenn la woon ci doomi si Moussa Ka yi ku amoon taxawaay la ab bindkat la woon itam daana bind xasida ku bëri woon xam-xam la ñu ngi nuyu it Serigne Gaawaan Ka moom it doom si Moussa Ka la mi ngi fi ak jaboot gi ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi ñëpp daal ci gàttal si Moussa Ka nag bis bi euh, yàlla nga ko ko joxe ci kaw sëriñ Mouhamadul Kabir Ka mi nga xam ne moo nekkoon premier xalifa Serigne Moussa Ka te nga xam ne aw turam si Ahmad Bamba moo ko joxe woon ne nañ ko tuddee Mouhamadul Kabir sëñ Tuubaa yi ku ne xam ne ne taawam ba mi nga tuddoon Mouhamadul Kabir. ñu tegaat ci Mouhamadul Yadaali sëñ Modou Sane ñu xaw ñu bari xaw nañ ko cee mag moom moo ñëw taxaw euh, moom moo ko laajoon Cheikh Abdou Ahad Mbacke mu am lu mu ko joxoon ne ko boo ko boo jàngee barab tàmbalee barab sàngam ba barab sàngam tàmbalee barab sàngam ba barab sàngam ku ñëw ku ñëw ci bis ba dana am nangam ak nangam ak nangam kon yaa noonu ci yàlla jagleel ñun ñu ci def tawfeex ñu ñëw ci euh, bis bi nag ci la si Moussa ko moo ci nekk bis boo fi gis dee si ko woor di màggal boroomi xar baax fa jaar ba àggal leneen bis boo fi gis dee si ko di màggal boroomi xar baax a fa jaar ba àggal kon bis yooyu di dox nag ci loolu ci la bokk bis bii tamit baax na ñu xam ne du caageen ne buñ ne si Moussa mu aada woo ni borom bis yi da aada woo bis bu ñuy màggal bu nekk bu dul si Ahmadou Bamba da nga dégg ñu ne daa gane woon àddina moom la ñuy màggal wala dafa génn àddina moom lañ ciy màggal walla nangam wala nangam wala nangam dafa tegtal na si Moussa Ka ñëpp ko bokk. moo tax bisu si Moussa Ka bii nag euh, du caage ne si Moussa Ka la cee gane àddina wala mu génn ci àddina wala leneen bi ko si Mouhamadul Kabir Ka tàggoo Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ne ko dañ ko bëgg a wutal bis sëñ Blaat ci boppam radiyallaahu anhu moo ne ko sëñ Moussa Ka moom am na bis bisub Seydina Moussa Moussa Kalaamullaahi mooy bisam mooy bi mu doon bi mu doon borom ca Tuuri Siina ba am fa ñeen fukki fan ba ba ba ba suñu borom ba jot lam ko jot ci bis bii la ko jotoon bis bii ñu dëgmal nii ci la ko jot mooy kahun li sil xeen dati muy ñaar fukki fan ak juróom ci sil xeen da ci la si Moussa ci Seydina Moussa jote woon lam doon sàkku ca boromam. te moo tax Moussa mii mu ñu dëppee ko Moussa Ka laamuloo lay moomee moo tax sëñ Abdou Ahad Mbàkke ne si Moussa Ka moom am na bis bis Seydina Moussa bu mooy bisam kon lii mooy mooy mooy bis bi bokk jur yëpp loolu tegtal na ni ñëpp ko bokk loolu ci la tegtal mu nekkoon tamit koo xam ne maanaam ku kay woon yitte la euh, dundoon la Cheikh Mouhamadul Basiiru daan wax ndax lu baax la ñu ñëpp ñu baasi ko dégg day dénk bu am solo Cheikh Mouhamadul Basiiru dafa dafa dénk am ne ko dee leen am yitte tey jeex lu baax nit ku ne lam jeex lay for loolu Cheikh Ahmadou Bachir moo ko dégle ne dee leen am yitte tey jeex lu baax nit ku ne lam jeex lay for sëñ Moussa Ka sëñ Tuubaa doon jeex for na Cheikh Ahmadou Bamba te bi mu ko foree yi tamit bu doon ak garab la bu doon Cheikh Ahmadou Bamba garab la goo xam ne gii dañ naan garabu furwi la mën naa am muy mango wala wala banaana wala pom wala yu ko niru si musaaka dafa yéeg ci ko garab ga di bàcc murid yi si bis di for di jëfandikoo kon bis la boo xam ne ñëpp ko bokk te noonu la demee noonu la noonu la demee yitteem jure joo it da ko yóbbu woon ci faale wutoon kër si musaaka faale wutoon kër këram daana daana daana daana dang dangi dangi dangi mooy mooy liggéeyub sëñ Tuubaa bi moo ko gënal këram gay naat loolu am naa ci yaqin si mos a si sëñ Alaaji Ousmane Ka nettal na ma ci lu bari te da cee dund lu bari daana gental këram ngir fasoo xam sëñ Tuubaa ba xamle ko loolu moom lu leer naa ñi la moom waaw yitte la kawe la woon te yitte jëpp jëm ci yàlla ak sëñ Tuubaa ak naka dees dees ko xamee te te kat fi nii kat euh, ngir loo ngir loo amul ngir loo xamul baatin ba doo ko fonk ngir loo amoon pas ba doo ca bokk te loo xamul baatin ba doo ko fonk loolaa tax mu bëggoon ñu xam sëñ bi te am na ci waaju baax joo xam ne ji xamle bi yonent dong ci la ko suñu borom dugalee benn yonent mu xamle ko kii waru leen a waru leen a toog ak moom kii déglu leen ko kii laaju leen benn intérêt ci li muy def léppam yàlla kese la laaj déglu leen ko sëñ bi yéen yéen yéen bu leen bu leen déglu leen ko mu wax rek yéen bu leen bu leen ko bëlëfe déglu leen ko rek waxa a wax ba gaa yi déglu ba mu ne suñu borom nekk wa jaa min axtal madinati rajulun yas'a qaala yaa qawmi ittabi'u al-mursalina ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun waaye dafa dem ba mu yàgg mu ne qiila duxulil janna yow daal lii nga wax daal ba nit ñi man koo déglu daal daal di tàbbi àjjana rek mooy ci sag pay kon yoon woowu la si Moussa Ka taxawee xamle lu baax ba nit ñi man cee jariñu yal na yàlla may tawféexi dégg ak topp bu ma guddalee damaa am yéene rek jëmb sax waru mën a guddal ndax waaye nag ñu ngi jéglu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu boonu fabul leenu ne wooy ku nu yafal ban debi kuy mu delu naatal xarnu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonnu ngala daam roggu ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku mun te boon nga jox ko nu bi tafa murit yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal foo toll doolu seen alal ndax yàlla na atel xer nu ndax yàlla am di Mustafa tabax jumaayi Mustafa bam tale marwataak saba ndax yàlla na atel xer nu bi mbaale murid yàppa jooy ngir lu ñu mu dalli gooy ba seeni addiyaa ngi booy sarax nu naatal xer nu bi jaa ngi xiif xiif luñ togg bar gi nekk fuuf Cheikh Bamba neel gën ji mindee waaw mbokk yi kon ñoo di gisandoo liggéey bu am solo boo euh, euh, nga xam jëlee nañu ko ci biir moom mi nga xamante bi bokk na ñi jiitee waañ wi xam liggéey bi ni muy demee sëñ bi li mu bëggoon xam mooy euh, maanaam waañ wi moo nekk waañ yu mag yi ndax dugg nañ ci biir kër gis nañ fa ay waañ yu bari ay waañ yoo xamante bi wax dëgg yàlla li wër kër sëñ Moussa gi yëpp ay kër la yoo xamante ne bi fenn fu ne waañ am na fa ñu ñëw fii nag ci waañ yu mag yi fekk la fi ñu bëgg xam sa Euh, ñu bëgg a euh, ñu bëgg laa laaj tuuti waañ wi nan la demee ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ngeen liggéey fi ak soxna yi ñëw wuyu si ak daayira yi association yëpp ñëw nañ fi. di leen di nuyu te di leen siyaare te leen di jaajëfal ci dikk gi lii mooy waañ wu mag bi waaye dañ koo def tey fu ne jël ñu def fa ay waañi waañ ndax dañuy xam ne dajaloo gi day xaw a xat ndax mbooloo mi ak jafe-jafe yi tax ñu tànn yeneen i waañ def ko ci yeneen barab waaye lii mooy waañ bu mag wi lii tey mooy waañ mu mag bi fi la jëwriñ ju mag ji ñëpp di togg fii ak bokki taalibe ak waa kër sëñ Moussa Ka gépp ñëw daje fii waaye nag dañuy tasaate waañ yi léegi jox maanaam ku ne sa dépasse ak yooyu yiñ ciy war a def yëpp nga xam ne day ñëw ci waañ mu mag bi moom daayira bi rek ñoo fiy togg daayira bu mag bi waaye yeneen ci kilifa yi yëpp génnal nañ leen mboolem loo xamante ne matériel buy ànd ak xéewal yi la pour ñu togg foofu tasaatoo ñu def foofu waañ ñoom it ñu nit bu ko defee ñu doog a ñëw fii nag def fi waañ mu mag wi noonu lañ koy doxalee at mu jot moom lañ jàpp ñaari at yi di ko def te gisuñ ci benn rëq-rëq moo tax ñu di ko def fi tollu nii tàmbali ko nag moom moo bañ ko tàmbalee daaw nag dañ cey gis ak soppeeku ak njariñ lu rëy moo tax nag ñu wenti wéyal nag yolu boobu boobu liggéey waaw ñu bokk ak bokki taalu bi ak soxna yi ñu ñëw fii nag wéyal fi waañ wi nag waaye teewul nag li ma la wax rek gis ci njariñ lool nag ak liggéey bu pëseefu ci soxna yi ak mboolem taalu bi ak seeni doom ñëpp taxaw taxawaay bu rafet ci bis bi ci waa ci wàlli waañ wi ak suñ bokki lumbe yee nga xamante ne ñoom it dañuy jóge ba lumbe waa kër Samba ba ak ñépp ak waa jàmm gën ak waa kër sëñ Mor Ndiaye Diop ak kulim na ngay juum ak waa kër Serigne sëñ Issa waa kër sëñ Aliou Mata ñëpp ñi ngi àndoon ba ci sëñ Xabaan mi nga xam ne ak sëñ Moura Absa ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Moussa ñëpp mboolem koo xam ne tudduma la rek sama xel a ci àggul waaye ñëpp seen njaboot a ngi fii àndaat di liggéey ci waañ wi takku def pastéef ci bisu sëñ Moussa bi. waaw euh, kon ñoo déggandoo kàddu goo nga xamante ne bi tukkee ci kilifa gi nga xam moo nekk ci waañ ñu jàkkaarloog sunu maam di aju Binta moom it mu am kàddu yoo xam dana ko sànni fii ci waañ wi nga xamante ne bi nekk ci mbàggalu Serigne Moussa Ka wi bismillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba mi nga xam ne moo ñu boole ci sëñ Moussa di ñaan jàmm di ci ñaan xéewal di ñaan mucc ñoo ngi tey ci suñu waañ wii di waañu sëñ Moussa di ànd ak moom mbég di sant bu baax nag xéewal guñ fa amin nag ñu koy sant sëriñ Touba rek di ñaanal sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal njabootu sëñ Moussa Ka gépp yàlla na fi yàgg te wér man maay soxna Bintu Saaw jiite waañ wi ci soxna ami bu sa suñ kilifa mooy suñu jiit ak gone yi nga xam ne dañ maa jiital ci seen bopp may seen lépp ñu jiital ma ci lépp luñ fiy def maa ko fiy def waañ waa ngi nii dara manqué wu fi waaw lu fi war a ñëw rek ñëw na fi lu fi war a teewit teew na fi dara manqué fi taalibe yaa ngi taxaw ñëpp a ngi taxaw ñëpp a sopp sëñ Moussa ñëpp a ko bëgg ñu ngi ñaan na ko fi taxaw reen bu déwénee yàlla na fi taxawaat barke yàlla barke Serigne Touba mbokki pël yaa ngi nii pël yi mooy pël yi waa Lumbe daayira jàmm gën bi nga xam ne sëñ Moussa moo ne woon jàmm gën yàlla jàmm rek lañuy am waaw loolu la leen waxaloon ne woon jàmm gën jàmm rek la am ñoom ñooy yor toog yi ñoo ñun ñoo koy ànd waa Ndiliki ak waa Boofel ak waa Yaañ ñëpp a ngi fi waa ñëpp ngi fi mboolem koo xam ne ci juróom-ñaari xur yu tund xur yi nga xam ne sëñ Moussa Ka ci la bokk ñi ngi fi mbokki pël yi taalibe yi sëñ Moussa Ka lañu ña nga dëkk ñooy lumbe dend ak caawin waaw caawin moom ku ne xam na ko fa la mu Moustapha Saw ne foo lumbe yi fa lañ bokk sëñ Moussa Ka mi ngi bokk ci eh, njobootu waa waa ndiliki foofu la maam soog foofu la bàyyam ne sëñ Moussa Ka nag moom moo ne fii di werekaanu xaadim di géwalu xaadim ñun tam ñu ay sëtam parce que yéen a jàppale bisam bi bu ñëwee soxlawuñ dara bëgguñ dara lépp rek mu baax rek yéen ñu leen di ñaan seen rajo bi fu ngeen bëgg mu yegg fa yàlla na fa yegg lu ngeen taxawaay fii déwén bu déwénee yàlla na ngeen taxaw lu ko barke sëriñ Touba barke Cheikh Moussa Ka ak sëñ Touba. lii mooy li ñu leen jëlee woon fii ci waañu mag wi mooy comme ni leen ko waxee rek ak ni ko soxna yi waxee waañ yi bari na lool ci biir kër gi euh, fenn fu ne dugg nañ fa war leen euh, waañ yi euh, ànd ak ci kilifa yi jëlee tamit wàcce alxuraan karim bi mooy kaamil ñu leen wàcce suba gi kon li ñu def mooy dañuy àndaat ci biir kër gi rek jëlee leen yi am ci biir kër gi jërë ngeen tool yi booy sëriñ bi gi asul xarnu bi tax na ña daa ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu leen fenn ba waaj sëriñ bi giyaadul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaadul xarnu bi sa dem gi tax na ñepp jooy nawi di sax dootuñu tooy leer yeeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaadul xarnu bi xam na ne daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xërnu bi sa yar mandeenu daa defal lu xel daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xërnu bi sa yar mandeenu daa sanal jigéen yaanu daamal tey ñeppayam kenn amatul bi geedul xërnu bi ñu sag saggi kuna ñii gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki ku naw ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moona ndax mu tànn daaw mu gën a far dellu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbakke geesul xarnu bi wuy noo wuy yalwaan amoo sarax garab bu daanoo xob yalax bambaay nga njaama xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say ngir ma alem lii rek dal waa xarnu bi allahu akbaru shamaan jamono moo mën a shabaan def da awala ngaan ci dabi mboolem xarnu bi li beeg keeki sax lan daa di woo muy wala ngaan ni xelli koppay dinaan wa tey kor ne xarnu bi astaxfirullah ali asim tuum nan lan daa di xéewal gi def daa wal wali ci nun di kel-keli moo ma jóg di pel-peli sëriñ bi jaadu xarnu bi xéewal gu def daa wala ngaam wax seen nga wuute nga ak sayaam xamoo xurak tundak sayaam sam doxa mandal xarnu bi wàcc nga yow lu ama sawaf def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñu nga yaar kenn wuddatul moo tax ma naa la sooxatan njëmbatlewal ci xarnu bi njëmbat lii mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi def yañu bawoon gi ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkka bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa ceebu tey ngay añe laax jaaxal na mboolem xarnu bi léeg-léeg nga gis fii am murit muy taxawaalu ne merit wala mu xàcc def tëriit ndaw njombe gaay farnu bi sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba di maanaam dex ku dem duy ku sóobu ne mes bu génnee boroomam ku sóobu te aw yoonam wa feesal ci ay leeram ba faf di duyal ay moroomam ku sóobu dex na xam ndox dof bi yeewul te watum ndox lewet na te wex ci biiram ku saggan sanku fawu te lab te dooduy te doo set te doo setal te doo xam boromam meloy bàmbaa waaju xamul ne dégloo te roy roy luy jikko moo xam boromam di jox aji laaj di dimbale ay dëkkaaleem sëriñu mam Moussa du tooñ te gu tooñ mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soob ku dul kuy mooy boromam. asalaamaaleykum wa bokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaara di leen. Euh, dalal waxal leen ci liñ jot a ci bés bi ñu daje fii sababu bés bi mooy ku ñuy wax Sëriñ Sow mu doon jàngkat nekkoon Kawlax daa ànd ku ñuy wax Alaaji Gàmmo moom la yàlla suñ boroom dogal mu jóge Kawlax ñibb Tuubaa bi mu ñibbisee Touba mu fekk ma fi maag ku ñuy wax Abdu ba ñu bokk moom toog mu ne waa Ndiliki dañ koo sant ak gàmmu ne ñu nañ ànd dem ca gàmmu ga kere ba ma ànd ñoom moom fañ daje fañ war a dajeeg moom bañ fa demee maag Abdu Ndar Abdu Ndar ne ma ñun dey buñ jëmee ca gàmmu ga yàlla nañ njëkk a jàng magi kër sëñ Moussa suñ na suñ koy suñ leen njëkkee jàng mën a ñëw seetaan si gàmm sëriñ Serigne Saliou Mbacké ma ne ko ah, waaw loolu nga wax ne dëgg la waaye mag ji ne ñoo leen di aw mu ne moom moo wax nga dëgg de ma ne ko nag fii ma taxaw di wax ak yow day xaw moom soppi naa ko tey mu ne ma loo wax ma ne ko xaw nañ xaw mag ñi te bàyyi leen xaw mu ne ma man de nangu naa ñu def daayira sopp sëñ Moussa ma ne ko buñ demee waxtaane ko bañ ko waxtaanee ca ndiliki ñëw toog ak Serigne Modou Kabir ka wax ko ko mu ne boole naa leen ak Saliou Ka bañ demee ci Serigne Saliou Ka bañ ko ko waxee Serigne Saliou Ka dafa roof loxoom ci poosam ci ci ci ci genn gaal sëq ci génn ay leetar wax ne leetar yi de bu ngeen ci jàng kenn bukkut ak moroom ma aw tur waaye dama ko wax dama leen cay wax ne lii nga xam ne Serigne Moussa Ka da ko wax ci Serigne Touba. ndax ñun taalibe sëriñ Moussa Ka yi ñoo koy génne wala dañuy wàcc ay jaambur génne ko bañ ko waxee nag mu ne léegi man sama yaram bii sax wéradi gii ci nekk jàpp naa ne lii may xalaat waxtu nekk moo ko def loolee mu daal di ne nag kenn ku koy def bu mu jàpp ne kenn la jàpp na ñett la maay jiitu maay te maay topp ci gannaaw maay jiitu maay topp ci gannaaw nag sëriñ Saliou Ka diirab lim fi nekk. ñaari russi yooyu la daa dagg maay jiitu may topp ci gannaaw mu ne jiitu gi li ma ci jublu bu ma dalee ci bant mbaa pakk ngeen yëg ne dal naa ci pakk bi xam nu ngeen koy moyoo maay des ci gannaaw la ma ci jublu bu ñu dara songee ngeen yéeg ne dara song na ma ngeen xam nu ngeen di moytoo ba mën a jàll loolee la doon doxal ñu di ko doxal nag mu tudd daayira ñu di ci dox waaye booba jànguñ guddi booba nag fekk na da maanaam màggal gi moom ñi ngi koy doxal di ko doxal ba bëccëg waaye mosuñ koo jàng booba guddi bañ dikkee waxtaan ak moom loolu gàmm ak màggal dëkk bu rëy dafa jege bañ demee ca màggal dëkk bu rëy ma ne sëriñ Sow ndax ni mag ñi jànge ci biir kër sëñ Moussa ndax mën nga ko mu ne ma waawaw ma ne ko alfil wara mu ne ma mën naa ko ni ko Baye Serigne Sow ñoom di jànge ak Baye Xabaan keroog Baye Xabaan a ngi toog Baye Serigne Sow toog sëriñ Kujje yëkkati wa alfil wara jàng ko ni ko mag ñi jànge ñoom ñoo ñu moom ak ñun ñoo ko bokkoon di xawu ñoo mag ñi ñoo ko bokkoon di xawu keroog bi ko jàngee ñu dikk màggal gi tàmbalee dox muy muy daayira bi ñu dem ba tëba euh, euh, koor ñëw laylatul xadar dikk laylatul xadar dikk bi laylatul xadar bi dikkee ñu defal fii Serigne Saliou Ka laylatul xadar sëñ Modou Kabir ne gàmmo gi day màggal gi day ba mu tàmbalee ba nag bët bu set wax nañ ma ne ma bu diwee ne nañ ko màggal guddi ma di ko gàntu dama bëggun njàngam po xaw ma woon mën ngeen lii gannaaw mën ngeen lii nag may naa leen ngeen di ko jàng guddi ca lañ ko tàmbalee guddi ba fii ñu toll daayira baa ngi dox nag koo mën a séen nag mu bokk ci lislaam waxuma la ku bokk ci yoonu murid waaye koo mën a séen mu bokk ci lislaam xamel na Serigne Moussa Ka njukkal koo mën a séen mu bokk ci lislaam xamel na sëriñ Moussa Ka njukkal ngir bu dee koo xam ne lislaam bi rek lañ bokk ak moom waxal na ko ci suñ yónent bi loo xam ne kenn ku nekk bëggoon nga koo xam te xamoo ko woon moom moo ko xam wax ko. bu dee ne ci danga ngaa bokk ci murit gi murit boo ma fi tudd ma wax la ci sëriñam loo xamante ne bii ba ko sëñ Moussa di wax sëriñ bi mu koy wax xamul ne loola àgg na ca te sëñ Moussa Ka moom romb na ko ngir xam na ne kii àgg na foofa bu ma tàmbalee ci maam Thierno. ki nga xam ne mooy saa buntu man dafa wax ne ma sullaa tey jële booti na yoo xam ne jomb na gone bii xar na ngeen ko dégluwaat te dollee farlu sardi bu dee wutal na seeti parlu xaalis bi ngeen di xas-xasee di xëccoo ak mbubbi maam ceerno yi ngeen di xiijoo cosaan la ka laa leen di bëgg a feeñal dug huññi mbóot waxtaan la woon wuñ siiwal nee leen sunuy nopp ba maam Moor Hanta di seeti kokki di labat la gontu keroog la ñaan loo mbàkke junni bi yaasin ànd ak ba kuy dal baasin ba mu demee ba ak kokki ba mu nuyoo xamuñu sant mbàkke ka ko taxaw na ñu naa ko roqe ñu may kibra pend bu tarxiya ñu di ko ree naa ko wallaay njool mbàkke yaa mën a jàng waaye da koo kokki Ahmadou Aminata dem na booba tubaab yi yóbbu ba ba sunu maam Mor Anta takkee bay war la ko fa saa maam Habsa Mbàkke càmbar waa kooki naa ko Mbàkke man nga li nga doon waaye ku ñaan ku la xamul sa may du doon maam Habsa Mbàkke ne nañ ko may sandoom si mbaama laxasu ñu daal di dajale mboolem kooki gaañu ko doon gëroo di fuur di fokki ñu daal di xutba yow maa sora ne leen suñu nopp Birahim Dia Serigne Mamar dajale gaa yi Mbàkke bëgg a jox xalal ji gaa yi kokki ndekete caako sa defoon xaalis ba rod na fa njaañ ba ñu dawal fa bar ba dawal gi nag loolu dañ ko du lijjanti waaye bu njëkkoon ñaar rek ñooy dem di jëggaani jabar borom daraja joo xamante ne bii xam-xamam moo landi ak borom doole joo xamante ne bii doole ja moo landi muy buur ak sëriñ ñii rekk ñoo daa jëggaani jabar muy dem nag di wuti soxna soxna siit lam ci jublu booba sëriñ Tuuba moo bëgg ku ko jàppal réew mii téyel ko réew mii xam ak mu mën a demam liggéeyali sëriñ boppam ca géej ga la bëgg a liggéeyal yàlla mu ne nag gaay gaay ko gënoon gëroo di fuur di fokki ñu daal di xutba yow maa soora a ne leen sunuy nopp Birahim Dia Serigne Mamar dajale gaa yi Mbàkke ngir bëgg a jox xalal ji gaa yi kokki ndekete caaka sa desoon defoon xaalis ba ron na fa njaañ ba ñuy dawal fa bar ba maami Serigne Jatara moo ko dencoon mooy bëkk néeg ba moom la góor ga fonkoon ku kërus ba ne ci sax ndaw jaaxle mbooloo ma mépp naa ko duutoo baax le ba ndéy la yàggee ñëpp a wax ba ne wedam maa ab sa Mbàkke ne fa seef ngi ne xeram Amadou Seck sama maam gawar ba moo ko ne suñ xaalis ba roon na booba maa ab sa mbàkke daal di tijji gaalam génne juróomi saa concours da lay am sarax ko foofee sunu maam mooranta ne ko na doomi faati mel ni jant te bul ko wax waa Mbacke mbaa waa Koki su ngeen dundee ngeen bokk sant Mbacke lii bokk na ca xese siyaar bu baax a baax ci bis bi di siyaar bokki taalibe yi fi daje yëpp di leen sant ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñun sëñ Moussa Ka mooñu moom ndax moo moomoon suñuy wàjjur bi ñu amagut ca biir moom googee mu leen moomoon ca la ñu moomaale ñun waaw moo moomoon suñuy wàjjur booba ñun ñëwaguñu àdduna bañ ñëw àdduna mu moomaale ñu ca biir moomam googa moom sëñ Moussa Ka sëñ Moussa Ka nag dafa bokkoon ci ñu yéeme lool ndax ci jamonoy sëñ Touba bi ñu demee ba sëñ Touba làqu fii ci ci ci kaw saayir dëkk bu ñuy wax mbënn mu doonoon daaraam man falaa daan jànge fala toogoon ne du fekk kenn fa lay toog ba sëñ Tuubaa fekk ko fa ba fa defee ab diir bay sëriñ ba fa defee ab diir sëñ Fallu moo jóge njaareem dawal ba toll fa ne yoon wi de xanaa ko ci jaar dem mbënn sëfoor bi jaaral fii sama baay moo ma nettali lool nee na sëfoor ba jàdd dem ba mbënn oto bi taxaw sëfoor bi wàcc ñëw ne gan yi nuyoo de ñu ne ko gan gi nuyoo kumu mu ne sëñ Fallu ñu ñëw ci néeg bi ne sëriñ Fallu ganay nuyoo de sëñ bi ganay nuyoo de mu ne gan nga ku ñu ne sëñ Fallou mu ne nee leen a na jàll si sëñ Fallou wàcc daal di ñëw dugg ci ëtt bi di dugg ci néeg bi sëñ Moussa Ka jaar ci bunt bi ci wanag wi dem ca new ga woon ca penku dëkk ba ñun ñu fa doon jànge daara ñun xam nañ new ga daa di fay toog bind li war ab jaam di salloo sant mbër ma ku sangam may bu santul ci war ma ma sant fi say xifalli ndax mu fal ma li tax mu woyof ba ñëw sama kër ba ful ma dama réeroon ca wam sasi mooy ba sëñ Tuubaa demee kenn tamaa fat nga gindi ma yow ca am sasi for ma yor ma rafet naa njortu de far naa yaatu ngir yow sama nar dal na de for naa bamba mbër ma way waa ngay wey rek sëñ Moussa moom mënee su koo jeexal nit la koo xam ne bu ñu ci doon wax li sëñ Modou xalifa bi wax rek démb suñ ci fanaanoon na wax xëy ji yenn du cee wax mënuñ koo jeexal suñ fi toogoon weer du jeex suñ fi toogoon am at du jeex waaye nag sama sëriñ bu baax ba Seex Momadul Kabir moo doon wax ne lu du doy de loo ca mos mu doy kon nañ ci mos loolu rek te seet keneen ndax nii ma ci xamee ni la ci ñeneen ñi xamee de waaw am na ñeneen bokki taalibe yu ci xam. ndax commerce ay di jaay ñii di ba jaa seeri ba xaay te xam ne yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xarnu bi bi ñii a loof ñii daw baraw beeni fii ma tee nga naatal xarnu bi yow la ñu yaakaar abadaa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem dañu daan bakkaar jëkkee ji xërnu bi soonu yoram nu tey yaru nanu dootu nu foog xammi nanu dootu nelaw yew nanu yaram nu naatal xërnu bi soonu joxoon la lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoona yaru nanu ku weddi laajal xërnu bee yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu su fal kare ba bool ba fal kade ba doon ja fal taa gog sak manga abasi rahmatullah sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou Kami nee na mi ngi leen di nuyu ci turu Serigne Sidil Mokhtar mi fi nekkal Serigne Touba di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lim a lëggeel Serigne Touba mu lëggeel ko Serigne Touba te ànd koog taalibe bi di leen nuyu it ci turu Serigne Mouhamadoul Kabir Ka mi nga xam ne mooy. moo fi nekkal Serigne Moussa Ka. moo fi nekkal Serigne Moussa Ka. di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. loolu lay yéene liggéeyal Serigne Moussa ma liggéeyal ko. ba lim yéenee liggéeyal Serigne Moussa Ka mu liggéeyal ko ko. te ànd koog uh, njabootu Serigne Moussa yëpp. te ak mboolem taalibe yëpp. ak mboolem taalibe yëpp. ak soppe yëpp. ak soppe yi. Uh, ñu ngi leen di nuyu bu baax. mu ne mi ngi leen di nuyu bu baax. di leen xamal ne. di leen xamal ne. suñ xol sedd na ci liggéey bi bu baax. mu ne suñ xolam day sedd na ci liggéey bi bu baax a baax. ndax ay ay ay tànk lañ. mu ne ndax ay tuut tànk lañ. waaye li ñuy jëf nii mooy jëfi mag la. mu ne waaye li ñuy jëf jëfi mag la. sëriñ Touba. mu ne sëriñ Touba. xameewul mag xameewul mag. mu ne sëriñ Touba xameewul mag. xameewul ndaw. xameewul ndaw. xameewul góor. xameewul góor. xameewul jigéen. xàmmeewul jigéen. kim xam daal. kim xam daal. te xàmmee ko. te xàmmee ko. mooy ki ko sopp te am pas-pas jëm ci moom. mooy ki sopp ba noppi te am pas-pas jëm ci moom. waaw kooku dong la xàmmee. nee kooku daal la Serigne Touba xàmmee. kon ku mën a ku mën nekk ku ne. ci nee loolu la ci ku mën a nekk ku ne. waaw na nga xam ne sëñ moom jàpp na la. na xam ne sëriñ bi moom jàpp na la. kon eh, ñu ngi leen di ñaanal. mu ne kon mi ngi nuy ñaanal. tey jiital ci ñaan googu. tey jiital sëñ Basiirou Ka mi nga xam ne. sëriñ Basiirou Ka mi nga xam ne. moo leen jiite. moo leen jiite. ci ci liggéey bii. ci liggéey bii. di leen xamal alxuraan. di leen xamal alxuraan. di leen yar. di leen yar. ci ni ko sëñ bëgge ci ni ko sëriñ bi bëggee. waaw kon nag moom it ñu ngi koy ci ñaanal loolu ci loolu bu baax ma baax. mu ne koy mi ngi koy ñaanal loolu mu bëgg a jëf ci yéen yàlla na ko borom bi nangu. mu te sottal ko. te sottal ko. te def leen ngeen di ay mag. te def xam ne danañ barkeel. yoo xam ne dañuy barkeel. te nekk ay jullit. nekk ay jullit. te doon taalibey sëñ Touba. doon taalibey sëriñ Touba. te yu koy liggéeyal. yu ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax. ñu ñu koy ñaanal bu baax a baax. waaw ku fay jànge daal ci daara ja. képp koo xam ne yaa ngi jànge ca daara sëriñ Basiiru ji daal. yal na suñu borom barkeel sam jàng. yal na suñu borom barkeel sam jàng. waaw da nga fay sàkku nga am ko. la nga fay sàkku nga am ko. te moom it suñu borom def ko kàttanal ko. moom itam suñu borom kàttanal ko. wéral ko. wéral ko. bàyyi kook sagoom. bàyyi koog sagoom. ba mën a def liggéey bii. ba mu mën a def liggéey bii. liggéey bu ñu ñu neex a neex ko neex a neex. ndax toolu bi eh, eh, toolu bi lislaam la. mu ne ndax toolab lislaam la. waaw te toolab lislaam. te toolab lislaam. ku cay bay ku ne. ku cay bay ku ne. yow mi nga xam ne danga ngaa bëgg lislaam. yow ne jàpp ne yow lañuy bayal. kon maa ngi jàpp ne. kon moom mi ngi jàpp ne. tool tool tool bi bu ñu koy bay. mu ne tool bi bu ñu koy bay. man mii lañ koy bayal. moom mii lañ koy bayal. kon kon sant naa ci bu baax a baax. mu ne kon sant na ci bu baax a baax. waaw gërëm nañ ko bu baax. gërëm nañ ko bu baax a baax. yàlla na ko sëñ Touba jàppale. yàlla na ko sëriñ Touba jàppale. defal ko gudd fan. defal ko gudd fan. ak wér. ak ak wér. ak bari xéewal. ak bari xéewal. te defal ko mboolem jullit yi. te defal ko mboolem jullit yi. defal ko mboolem taalibe yi. te defal ko mboolem taalibe yi. waaw ak ak ku teew ci bis bi. ak ku teew ci bis bi. rafet nañ ci njort bu wér. mu ne rafet nañ njort ci ñaan. waaw ndax sëñ Abdoulaye waxoon waxoon na na ko te loola ña ca. te booba. te ca. waaw kon nag yal na yàlla faj aajo yëpp. faj aajo yëpp defal leen tawféex. ñu yàgg ko fee eh, eh, eh, ñëw. ñu yàgg ko fee andi. yàgg yàgg ñu fee fekk. yàgg ko fee fekk. Ah, tañ daje cee ngërëmal sëñ Touba. ndax sëñ Modou Kabir moo daa wax ne. mu ne ndax sëriñ Modou Kabir moo daa wax ne. suñ ma dee tudd sëñ Moussa tax. suñ ma dee tudd sëriñ Moussa tax. suñ sëñ Moussa sëñ Touba tax. bu ñuy tudd sëriñ Moussa sëñ Touba tax. kon ma ne su ma wat ca watit mu ne kon nag moom itam war ca watit ñu ma dee tudd sëñ Modou Kabir tax mu ne tudd rek sëñ Modou Kabir tax ñuy tudd sëñ Modou Kabir sëñ Moussa tax mu ne bu ñuy tudd sëñ Moussa sëñ Modou Kabir tax sëñ Moussa bu ñu ko dee tudd sëñ Touba tax sëñ Moussa bu ñu koy tudd sëñ Touba tax kon lépp sëñ Touba la kon waaw yàlla ñu fajal aajo yëpp yàlla ñu saayir ak baatin ci saayir ak baatin dafa gudd wér ak gudd fan defal lu wér ak gudd fan ak bari xéewal yàlla ñu sëñ Touba yoral boppam yàlla ñaan ak sëñ Modou Kabir la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah.